buy ambiance nag tegal ci loxo Assane Diagne Adalal adalal adalal

kontaan am mbégte ñëw fii ci Ngor seet xale bi nga xamante ne champion la muy Xeeru Ngor numéro 2 mu jëm ci bis bu rëy jëm ci bis bu mag digganteem ak Koña numéro 2 Koña nekk xale boo xamante ne ndaanaan la ci làmb moom mii mu nekk ndaanaan ci làmb ki ko dëgg di le roi de Iba Mar Diop muy Assane Ndiaye Baol Production ñu war a fas yéene bëre le 16 janvier bi ñu jëm.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 jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass balaa may wax dara damay jaale sama bopp di jaale waa Ngor gépp Arouna Samba mi nga xamante ne sama frère la woon sama lépp la woon mosuma xewle te taxawul sama ginnaaw tey yàlla moom ko ma koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla xaare àjjanay firdawsi waaw di nuyu waa Ngor gépp di leen wax ne le 16 yàggatul le gen di kapeer ma am nu mu war a taxawee te incha allah dinañ ci taxaw da ngay bëree xale boo xamante ne ñëpp duñ naa tàmbale mën a bëri euh, mu doon champion chef de l'État jël ay riaaya bu ne li traditionnel bi ñu di ko gis muy wane boppam ngeen ñëw ba stade Iba Mar Diop mu la mënoo bëre da lay jàngal bëre yanu ba ci kaw dóor ci xanaa loolu moom doo ko seetaan. bu soobee yàlla dinaa ko daan bu soobee yàlla. di nga daan kan dinaa daan Kogna 2. mu ngi lay xool. bu soobee yàlla Kogna 2 dinaa la daan. bu la neexee dinaa la daan bu la naxaree dinaa la daan. mais li nga wax foo ko teg. bëri naa combat bu nekk sama carrière combat bi mooy sama quatorzième combat sama carrière mais taxawaay bi waa ko am ci combat bi mosuñu ko am ci combat. lu waral loolu. parce que dafa am fuñ jëm yow ñoo nga fi open presse fi jaar yëpp ñoo nga fi bés fi jaar yëpp ñu am ci dynamique buñ nekk gars yi di liggéey lu métti soo ma xoolee boobu ba léegi xam ne maa ngi liggéey. te jour ba ku ëpp lu mu liggéey ëpp doole ëpp fit ëpp sañ-sañ a pare. Mm. yàlla yàlla may ndam. nee moo la dàq bëre moo la dàq xeex moo la ëpp mbokk moo la ëpp ginnaaw sax ci bëre. waaw loolu bu arbitre sifflé dina leer nit muy wax ne moo ko si daan ngeen a yéen ñëpp. ci bëre goo xam ne wala ci xeex. wallaahi bëre boobu muy wax ne moo si favori gars yi naan moo si favori bu ñëwee bëre ma daan ko si bëre ba ñëpp waaru. wóolu nga sa bopp ci bëre ak moom. billaahi wallaahi tallaahi amul ma ciy daw drapeau Sénégal demoon de. non non moom bu ko neexee mu dem sa drapeau Sénégal bu ko neexee mu dem coupe du bu ko neexee mu dem coupe d'Afrique ku ne naataawul lu ne làmb ji bari na yoo xamante ne demuñu sax Dakaaru gi te toj nañ làmb ji yàlla mooy may ku nekk mais bu soobee yàlla la 16 incha allahu rabbi koo ñaata dinaa ko daan. nee na Iba Mar de xam na ko ndax yanu ba ci kaw dóor ci suuf moo ko moom sit boo dem di nga gis yanu kooñaa deux ba ci kaw dóor top 5 waaw ak ñi muy mu doon yenu ak ñi mu doon di leen daan. du géant bi de kii géant bi la. le géant de cap eh, eh, am bigi di luy loolu. dama am doole. yow mi barke alxuraanu karim dama am doole. yaa kooñaa kopp doole. wallaahi dama am doole. yaa kooñaa kopp doole. toujours ba nga xam dama am xam doole mooy lan. Eh. moom gisuma dooleem parce que mënu ma koo gis. lu tax buñ taxawee wax moom nii. ñu taxaw mu ne yow maax ma ne yow ñu posé hmm. su may bëri du ko bëri. Hmm? su ma duggoon yow catégorie bu muy bëri bu mu fa bëri. yow poids lourd la. yaa ko wax de man géant la. doo dégg la géant di cap maa ngi koy dégg maa ngi nii. loolu la. de. barke alquran. ngeen jëm ban wàllu mobilisation ngeen ci xam ngeen ne promoteur bu dëgg bés bi dafa soxla mbooloo mu bari wuy si la te lii ma gis Ngor est-ce que dinañ dem instant. ku ne xam na biir yi muy jar. 2000 ku jël 5 bolok lu muy wàcc. cinq bolok la jël te fe cinq bolok yëpp dinañ ñëw. dama ne la ku jël cinq bolok lan lay waaj. mbooloo cinq bolok yi matul. damay wax autorité ngor yi ñun li nekk suñu ginnaaw mënuñu ko drainer amuñu doole bi. yee yàlla nattoon nañu benn affaire bu ñu génnee ñëpp téemu ñun amuñu lu autorité ngor yi amuñu lu waa ngor nañu waa ngor taxaw ngir yàlla ak yonente bi ñun ñuy taxaw de mais lu ñu taxaw doyul parce que dañ am fu ñu bëgg yóbbu fleuron ngor ci làmb te bu soobee yàlla dañ ko fay yóbbu. yee ku ñëwoon Ngor ay jamono si ginnaaw ñëwaat fi tey nga xam ne làmb mu fi dund bu baax yee dund boobu noonu dafa am ñu teg seen loxo ba tax mu yegg foofu te am na fu ñu ko bëgg a yóbbu feer waale sereen bi ñëwul duñ bàyyi par force Ngor décidé na maa lay nuyu di la siyaar baax dañu gis bi nga jógee sa combat ak Boy Diop ñu dalal leen wasaare làmb yow ak Kogna 2 au début da nga ko doon minimiser lan moo tax nga jël combat bi te bëggoo ko woon avant non minimiser ma ko xam nga tamit làmb dafa am yoon bu làmb rek la ñuy wax mënoon naa am ku gën Konia 2. yéen ñëpp xam ngeen ne am ku gën Konia 2 parce que palmarès yi bokkul adversaire yi ñu bëreel bokkul pour dee ak sa bàmmeel mais dama fi nekk pour làmb nekk fi pour liggéey man liggéey ma dul làmb su ma bëriwul damay perte chaque année damay bëri ñaari yoon donc suñ ma ko joxee ay ma ma jaral a doon ma war a mën a bëri moom làmb boole yi damay bëri moom xool leneen parce que dama ko fas yéene daan daanaat keneen day gaaw wala day parce que yaa ngi jóge ci ñaari combat booy jóg ak booy yëmbal moom mu jóge ci wës jàmbaar ak Ronaldinho yéen ñaar est-ce que combat bi ku daanu ak làmbam du sànku. man sama làmb mënut a sànku man làmb dama see bokk yee dama si def xamante ne ak lu métti métti rek làmb damay su ma yemale woon fii sama carrière ah. dinañ ne Xeeru na fi nangam. bu dañ. yee combat la rek te incha allahu rabi day muñ. a day Boy Niang 2 day muñ. gaawul ante ci nekk ñaari combat yu mujj arbitre yëkkatiwul loxo man damay daan incha allahu rabi dama koy daan. day gaawal day yéex. si kattanu yàlla dinaa ko daan. bu gaawee. mu gaaw su yéexee ma duma mu génn saako. dama ci dégg benn surprise boo xam ne dinaa la ko wax pour sa supporters yi ñi nga xamante bi nii ñëwee nañ kaaw Pate Gambia ak Baye Djili Tarkina nee nañ pare nañ pour kaaw cent mille francs ci combat bi. supporters yi balaa ñuy kaaw ñoom ñooñu nañ génne seen xaalis bu ñu tegee un million ma teg un million. amuñu xaalis ñoom ñooñu amuñu xaalis. luñ bëgg bu ñu ñëwee si làmb ji yéen yéen a ngi fa. luñ génnee teg ko taaw bi kaaw ma teg ko kaaw. moom wala nga kaw. waaw ayca wooteel say mbokk waaw di di woowaat su may mbokk rek bu ma ne su may mbokk génnuma Cap-Vert su ma ne mooy tànk Ngor Wakaam Yoof amuñu loolu ñoom yee te combat bi dafa doon combat boo xamante ne gars yi ñu ngi koy waaj ak doole parce que bu ngeen gisee open presse bi ni mu demee rek ngeen xam ne am na ñoo xamante ne maanaam ñu ngi sonn ci bés bi am lu mu leen jaral comprendre nga di woo ku si mel ni Amadou Gueye at yi ah le maire sortant de Ngor xam nga maa ngi koy woo le lion noir am na lu mu waxante ak ñun te lu mu mos a waat ñun def ko mais combat bi dañ ko siy woo bu baax baax baax parce dafa am luñ ci bëgg xam nga di nga ko wax na ñëw jàpp si bés bi bu si jàppee la si war a jàpp bu si war a jàpp di woo ñëpp ñi nga xamante ne ngor la ñu nekk moo xam nga déposé bi moo xam nga ko déposé parce que ngor te ñoom ñëpp ngor moo leen a jóg la ñuy défendre kon ñu ñëw jàppale ñu te yàlla tax di di gërëm koo xamante ne sama papa sama lépp la muy docteur ñaa borom suma assistance parce que bu ngeen gisee envoyé na ma benn ambulance mu ngi na la xam nga may defal mënu ma ko wax wallahi même bu làmb weer day mu envoyé ma xaalis di ma may xaalis te defal ma ko dara maa ngi koy sant di ko gërëm li mu def si combat yi mënu ma taxaw di ko wax wallahi al azim koy sant di ko gërëm di woo sama nijaay Karim Ndiaye borom black and white di woo Baye Boris borom la ngor yaatu na di woo sama nijaay Tra borom nofaay a Omar Seye borom Rip Keur ñu ngi koy woow ñëw jàpp si bu baax a baax a baax di woo suñu grand frère muy Moro Youssoupha Mbengue international sénégalais ñu ngi koy woo mu ñëw jàpp si bu baax a baax a baax di woo grand yi ngor yëpp amul exception secteur yi nekk ngor yëpp maa leen di woo di woo booy ngor yëpp booy maa leen di woo waaw di woo grand yi nga xamante ne dañu sonn ci man muy waa xitma bi aw ma seen fay di leen wax ne benn di seen mbër ndam li seen ndam la incha waaw coordinateur li ma koy mujjee wax mooy. li ma koy mujjee wax mooy wax ngir yàlla ay yonent bi rek ñëwul stade nga dugg si géew bi. li des naa ko réglé. ñëw moom dina ko def ndax daa signé contrat waxal leneen. na ñëw rek man bu ñëwee rek xel dal li des garaawul.